ok salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk taalibe ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziara li ngeen di gis sama ginnaaw mooy guddig maam Cheikh ibrahim Fall bi nga xamee ni ñu ngi koy amalee fële ca Diourbel kañ la le 29 juillet incha allah tombek lendemain Tamxarit guddi goo xamee ni dañ fa bàkk dañ fa tagg dañ fa njukkal Mawlana Cheikh Ibrahima Fall waaye ci ndigalu kan. jaamu baay bi dofab baay bi jaamu maami Rama Fall muy bàyyi su baay moom moo woote lii ànd ceeg ay taalibeem ñuy tagg di njukkal maam Cheikh Rama Fall waaye ci bés boobu nag dañ fa rendre hommage suñ mbokk bu ñu doon wax ndaama mu tudd Abdourahmane Gueye waaye bu buñ ne ndaama xel yëpp dem ci Abdou Barama moom nii la tuddoon boppam dinañ ko ci rendre hommage waaye ci bés boobu nag am nañ ci ay marraines d'honneur marraines d'honneur mooy suñu yaay suñu yaay Anna Dari suñu yaay Ulay Fall suñu yaay Aïda Tandiang ah suñu yaay euh, Roqe Ngom ak suñu yaay Ndey Tuuti ñu ñooy marraine d'honneur yi waaye ci bés boobu nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci sàkku ñaanoo mbokku taalibe yëpp képp ku gis lii rek jàppal ne mooy sa invitation zikkarkat yi mag dinañ fa ñëw comme niñ ko doon defee ci année yi passé waaye Fayda Sané bi nag nga xamee ne mooy Cheikh Baye Guttu ak équipe ñoom ñoo koy taxawee ak ñeneen ñi fay ñëw ñëpp képp ku gis lii mooy si invitation ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp nee nañ bés du tuut borom lay tollool te maam Cheikh Ibrahima moom la Ibou Diouf waxoon na ko ndap loo bonn tëjut am ndappaay loo ca def mu ñoŋ koo koy Cheikh Ibrahima moo xam mbooti barxaam kon nag kooku nañ ko ñëwal ndax ñu jot ci mbooti barxaam yooyu noonu ñu ngi leen di woo di ci sàkk seen teewaay yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah